dalee nag jàmm mbokk internet yi coowal góor jigéen ma fi woon jóge gu fi góor jigéen ya ci diwaanu cees feeñal nañu seen bopp looloo jur ab ab jàmmarloo ci seen diggante ak l'enquêteur bi di Kocc ginnaaw si nga xamante ne jot na daal di publier yenn ci ay nataale ki vidéo yooyu lee góor jigéen yu ñu bettoon ci ab taxi ñuy def naka sudul noonu doy na waar kawteef eh, eh

eh allez eh eh. dama dugg sax dañ ko xamal la xamal la. xamal ndeyam yow yéen ay góor jigéen xamal la xamal la ñun ñoo tooñ ñu ngi jégal te yàlla. waa ñu ngi jégal te yàlla. waa ñu ngi jégal. jégalu eh. Ousmane eh. te xam na fii man yàlla amul saa mu suru la woon. saa mu suru la. commissaire moo dëkk fii. waaw waaw waaw taxaw bu génne bi rek la góor bi. xool waaw dëgg waaw saa mu sutura. man maa saa mu sutura. laalee kaa dem portable bi. ñoo saa mu sutura. yaa fi eh. fi góor jigéen fu nekk taxawaa tëmali. tëmali. woon day police. waaw waaye ma xamal la laa bëgg. xamal la laa bëgg. waaw xamal la laa bëgg xamal la laa bëgg waaw xamal la laa bëgg waaw xamal la laa bëgg waaw xamal la laa bëgg waaw xamal la laa bëgg tey jii ay nataal yu doy waar lañu ne fang ci l'internet bi yooyu leen nataal ki ci feeñ di ab góor jigéen bu ñuy wooyee du Diop moom moomu lee ci yooyu lee foto moom moomu lee ci yooyu lee nataal mi ngi ci def na ko ndayam juree woon moom góor jigéen boobu ñuy dàkkantalee Awa sibeer moom la ñu jël ay nataalam ne ko fang li lee nekk lu doy waar ca foofu lee ca Thiès benn dëkk ñaari gaar waaye mel na ni jamono ji góor jigéen ñi dañ leen rax mi ngi noonu ñoo ko gisandoo kawteef